Et voici les membres du Conseil constitutionnel qui s'installent. xam naa en ce jour historique pour euh, le Sénégal les Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Diakhar comme cinquième président de la République et il va venir dans un instant rejoindre le Présidium mhm. parce que la salle a été transformée comme euh, justement en tribunal, euh, comme euh, on le voit au niveau du mhm. Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'il va prêter serment euh, en compagnie, justement, sans doute, euh, de sa famille, euh, de ses parents. On a vu tout à l'heure son père, on a vu également son homonyme. John euh, Maifei, qui a été également interviewé par Ibrahim Onong dans les éditions du journal télévisé. Mm -hmm. Et euh, la salle est archi comble. Et tout le monde euh, est pressé d'entendre euh, justement le cinquième président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors Rama li ñu doon wax sànq rek du changé maanaam taaru Sénégal mooy def élection si jàmm jublu si liggéey gi. xam mhm. nga chantier yi bëri na. ñu ngi wax pétrole ak gaz waaye am na leneen ak leneen loo xamante ne war nañ ko euh, gën a defaraat lépp lu jëm si mbirum wér-gu-yaram lu jëm si mbirum jàng di si université yi mm. ak si école yi ndaw ndawaan yi infrastructure yi c'est vrai que euh, président Macky Sall def si lu bëree si mbirum tali mbirum courant production énergie euh, gaz bi ak pétrole bi su ñëwee dina gën a jëm kanam mm-hmm. waaye chantier bëri na lool mm-hmm. je pense que formation professionnelle bi aussi xale yi am métier et surtout surtout formation voilà euh, surtout formation professionnelle ñu gën ko yaatal ngeen nag mën a gunge ndaw yi tàggat leen ngeen ñu am métier ngeen nag ñu mën a am fu ñu suturloo ndax loolu xale ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndax kenn ku nekk yaa ngi xaar li nga xamante ne rek euh, mën nga ci yëngu euh, ngir nag mën a teral euh, sa bopp teral say njaboot te ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci le nouveau président moom mi nga xamante ne ndaw la comme ñoom di Bassirou Diomaye Faye. di nga bu weex bi mhm. foofu lay toog. Mhm. Euh, moom lañ doon wane sànq waaw gis nga nag saa yu wane euh, Ousmane Sonko mhm. euh, saal bi riir mhm. waaw parce que Pastef moom mooy président parti bi mhm. moom la ñu gënoon ràññee avant sax ñu bëree di découvrir Bassirou Diomaye Faye mhm. waaye tey jii gis nga yàlla lu muy def waaw xam nga moom moo waral coow li moo tax eh, saay bu ñu gisee image ak mbégte la ñuy àndal moo tax foog ñu tàccu ndax nag moo tànn Bassirou Diomaye Faye pour mu. dama dafa mel ni mbir yi commencé na dañuy déglu président. Badio Camara Badio Camara président du conseil constitutionnel. la place qui lui est réservée. Greffier bi Voilà. Dans un instant, nous allons assister à l'entrée du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président du Conseil constitutionnel a demandé à justement à Madame la greffière d'aller chercher le président Bassirou Diomaye Faye. Et vous voyez euh, sur les images de Sabassi Faye qui est juste à côté, voilà, avec euh, le chef du protocole de la présidence Mamadou ñii ñooy dem jëli président bi indi ko ngir mu ñëw prêter serment euh, ma ngoog chef protocole bi di Mamadou Ndiaye mi ngi leen di expliquer mbir yi ni ñu koy doxalee kon nag ñi ngi dem jëli ki nga xamante ne moo di président Bassirou Diomaye Faye xoolal image bi euh, si ginnaaw écran bi lan ngay gis gaynde ak photo Bassirou Diomaye Faye xam nga emblème mu Sénégal gaynde la d'accord et dans un instant le président Bassirou Diomaye Faye et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire entrer avant celle du cinquième président de la République du Sénégal. waaw gan yi ñooy njëkk a dem dugg ci salle bi installé wu ba pare gis nañu ne euh, daal maam yenn ci membre conseil constitutionnel génn nañu ngi dem nag jëli euh, le euh, nouveau président de la République léegi nag gan yi bu ñu duggee ci salle ba installé wu si ngeen di gis nag le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko mooy dugg si noonu ci ci salle bi. Euh, gunge gan yi ba ñu toog su ko defee nag euh, Bassirou Diomaye fay ànd ak euh, membre conseil constitutionnel ngir dem nag toog ci place ba ñu ko gardeel kon ngeen gis noonu ne njiitu réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ak représentant yenn réew yi nga xam ñoom ñoo ñëw euh, ñoom ñoo dugg si noonu euh, ñooy dem toog euh, si seen place après le président Ousmane Sonko tamit toog ci place sam léegi nag waa conseil constitutionnel yi nga xam ñoo ngi nii génn ngir jëli Bassirou Diomaye fay ñooy ànd ak moom comme ça mu dugg nag toog ci place bi ñu ko gardeel Ibrahima. voilà weex bi président Bassirou Diomaye Faye di toog jàkkaarloo ak euh, juge yi suñ ko joxe kàddu gi pour mu prêter serment après muy loolu alors ñaari soxnaam yaa ngoog <laughs> saal baa ngi tàccu Excellence, Monsieur le chef de délégation des pays amis, lu ñuy xaar mi ngi agsi voilà du mooy nag premier président bu am ñaari jabar ci Sénégal loolu ah, aussi. Ah. mais kan mooy première dame moo gën a. bon loolu moom si euh, wax. <laughs> mooy euh, mooy président bu gën nekk ndaw. waaye mooy président bu njëkk am. ñaari soxna. c'est un pasteur un responsable c'est tout hein yow looy xaar si am ñaari soxna Ibrahima. bon loolu yëpp euh, moom. le président Diomaye moo gën a nekk responsable Ibrahima bul daw question bi. du yàgg mu génn ñu ngi koy xaar. dama ne loolu yëpp ci tradition Sénégal la am benn wala ñaar wala ñett ñetti soxna ku mu saf rek euh, nga defee ko noonu kon nag euh, dans un instant en direct sur la RTS l'entrée du cinquième président de la République du Sénégal. vous avez vu le président de la Mauritanie, euh, Mohamed Oulgazouani, Adama Barrow de la Gambie, Amaro Mbalo, Sissoko de la Guinée-Bissau. Et vous avez vu ce public très enthousiaste. Voilà, euh, Osman Sonko, ses épouses, euh, mais également Bassirou Diomaye également, qui est là. Et l'ovation de la salle à chaque fois que l'on cite le nom de Bassirou Diomaye Voilà. <laughs> Il y aura une grosse ambiance euh, ici à la salle des expositions à chaque fois que l'on montre l'image de Ousmane Sonko. Vous allez voir euh, dans un instant arriver le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye euh, et le le maître de cérémonie ah moom mooy waxagum nii. de présenter gan yi gan yi fi teew. ma ngoog moom armée sénégalaise la nekk mooy tàmm di def euh, euh, cérémonie armée yi maanaam journée des forces armées ak yeneen i xew-xew yi am si biir armée bi. am na solo. kon nag. parce que Ibrahima dama am yaakaar ne bu président bi duggee rek cérémonie bi dafay commencé. naa la moo tax ñuy ñu jëlee devant. présenté gan yeeg yooyu laata président bi di dugg si. Mangoog su su paree si lim bi après si la ñuy jàll si cérémonie officielle bi. Ibrahima nag euh, di coupe Mamadou Doumbia bi vraiment neex nañu trop macha allah wax dëgg yàlla. waaw mais xam nga fi ñi fi teew yëpp ñi fi dëkkandoo la ñu wax dëgg yàlla. ñi fi teew yëpp dañ fi am place xam noo Cap wax tudd Sénégal te doo tudd Cap Vert. dëgg la Gambie wax euh, waxati noppi. Guinée bi ngay wax ni Guinée Bissau Mali benn la. benn la colonisation moo ñu indi jafe-jafe. Sierra Leone bii ngay gis sax ay ay mbokk pël yu bëri ñu ngi fa ay mbokk Sénégal Burkina Faso kenn waxatu ko si bëri si jën ñuy consommé Sénégal lay jógee ak yeneen yeneen yeneen yeneen yoo xamante ne. Ibrahima na yu bëri Côte d'Ivoire kenn waxatu ko soo waxee Côte d'Ivoire wax Sénégal si lu ñu bokk si Sénégalais yi fa nekk bëri lool soo demee Treichville wala yeneen dëkk yi maanaam Sénégal si boppam moo nekk dëkk boo xam ne Sénégalais fépp la ñu xëj. Monsieur Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, et Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UMOA. E Je enfin à signaler la présence parmi nous du corps diplomatique accrédité au Sénégal de nombreux invités de marque, y compris des membres du secteur privé, société civile et d'autres catégories socio-professionnelles. Je vous remercie de votre aimable attention. ndax nag. am na lu bëri du ñu lëkkale ak euh, réew pa Nigéria. waaye ñu jàpp na rek euh, membre conseil constitutionnel yu génnoon Ibrahima ñoo ngi dem jëli euh, président bi du yàgg. mu génn dem ci salle bi nga xamante ne rek foofu lañ koy xaar. voilà xam nga Nigéria CEDEAO la bokk ñoom dañoo nekk li nga xamante mooy puissance ci Afrique. bokk na ci dëkk yi ñu gën a ràññee ci Afrique moo tax ñoom suñ fi teewee tey day gën a wane li ma doon wax rek mooy dooleel Sénégal te loolu dafa am solo maanaam fexe ba wane ni Sénégal mën na dajale Afrique te loolu la ñu nekk di wane nii parce que Nigéria su teewee Côte d'Ivoire teew laa mhm. na desati Mauritanie teew Mali teew Guinée les deux Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry dara desatul wax dëgg yàlla eh, li wane na ne eh, waa Sierra Leone teew macha allah eh, li wane na Sénégal mën naa dajale réewu Afrique yëpp ci réew ci réew mi ñu nekk di Sénégal te it Sénégal mat nañu mat ngoo xamante ne rek mën nañu comme ni ñu ko